ولوي وكالكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبة منادي وأقلامي ولوي وكالكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبة نويت له شكرا كثيرا كما ما جنابي واسفي يوما جوى اللهبة dinaa ko gis fépp kon kooku vraiment mi ngi ci aw yoon kon ñëpp nañu ko ñaanal bu baax a baax suñu borom taxaw ko surtout li nga xam ne defal na ko sëñ Touba wala mu la jaag ci biir semaine bii la jógee Masaalikul Jinaan tey jafe-jafe amaat mu dikk taxaw fii di jàppale li nga xam ne mooy askan wi kon vraiment dañ koy jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf parce que naa ne man parce dana am ay ndam ndax kër gi kër ndam la man an naa fi président Abdou Diouf ci kër gi ànd naa moom ci biir kër gi waaw ba keroog ba mu naan ko ba ko sëñ Blanc naa du ma sant ko ma deful dara maa ngi toog te yàlla def te doomam di Barthélémy Dias indi fi matériel boo xam ne bii ah am nañ ci yaakaar ndax boo dugg ci kër sëñ Blanc ba ci néeg ba ci néeg ndox maa ngi ci fépp a yàqu ba ci néeg defal ko kenn boppam la ko defal yàlla xam ne ko te dana dana dana ci gañe ndax